waa li sabab ndaje mi comme ni ko waxee en français rek dafa am lu nga xamante ne mooy benn tableau de bord boo xamante ni organisation daf ko maanaam benn jumtuwaay bi nga xam ne ci lay sukkandiku ngir mébét yi nga xam ne daf ko mébétoon ngir way laago yi mu mun ko sottal jumtuwaay boobu ci lañ tënk.

te askan wi segem ñii jàpp ne ñoo am doole tey ñoo nekk ci ay jafe-jafe waxuma laa ñi bokk ci ñi gën a néew doole ñoom lu jëm ci wàllum njàng mi boo gisee tey loolu ñu koy waxtaanee seen jote matewul lu jëm ci wàllu liggéey bi lu jëm ci wàllu lépp comme maamoon nu mu ko waxee rek parce que bu fekkente ne yow sa njàng matewul sa tàggatu matewul kon wàllu sa insertion professionnelle wala nga mën a moom sa bopp loolu dafay poser problème te loolu yëpp tey way laago yi dañ koy jànkonteel waaw xam nga carte d'identité des chances bi dañuy wax du maladie universelle sax mais la ko njëkkoon a tax a jóg carte égalité des chances dafa am ay services yu ñu ko lëkkale woon lu jëm ci ay formation sept services yoo xamante ni mun nañ wax ni benn effectif ci ndax semi bi ñëpp xam nañ bi Macky Sall ñëwee lañ ko indi bourse bi Macky Sall moo ko indi te carte bi judd na loolu ji lu jiitu mag yi li ko njëkkoon a tax a jóg muy pour identifier personne handicapé ñu xam handicapé bu nekk yow ban laago nga am ak sa degré d' handicap ak tamit ban xeetu laago nga am leneen li ci topp ñu jël ay service lu jëm ci wàllu njàng mi lu jëm ci wàllu transport lu jëm ci wàllu cadre de vie bi ak sànq maama lu ko jëm si wàllu aide technique parce que handicapé boo gis dafa am lu wàññeeku ci moom te li koy mottali mooy aide technique yi maanaam man lii ma yor tey kaan moom moo nekk prolongement sama loxo il faut que ma am ko am na ki nga xam day soxla toog ci fauteuil roulant am ki soxla yor bekki am ki soxla sax appareil auditif yooyu mooy tax manqué manqué bi amoon ci yow mu mën a mottali ko ba ñu mën a nekk ay nit yu productif waaw moo tax tey wax fa dëgg yàlla carte égalité des chances ba noonu xañ na Pikine lu mat ñaari junni jot nañ ci mais nag lu tolloog fukki junni wala lu këpp ñi ngi xaar ñi ngi xaar carte yooyu mais ñun ñi jot rek sax bu fekkonte ni service yi ñu ko lëkkaleel ñoom ñu ngi koy bénéficier wu loolu sax déjà sant yàlla lay doon mais ñi jot ñëpp mun nañu wax ni service yi yu bëri effectif wu vraiment production waaw waaw dañoo war a bëri production parce que ay nit bu ñu dee ànd am ñoo xam ne rawee nañ leen lu bari dañuy war a ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw muy way laago yi comme li ñuy wax pour corriger inégalité sociale yi ñu ñoom ñu tàggat leen renforcer leen ba pare jox leen ay jumtukaay yu permettre xam naa dab bi dina yéex ndax ki la raw lu bari pour nga dab ko day yéex mais nag ñu fexe au moins ñoom tamit ñu bari seen i jéego ba ñoom ñu am lu yokk-yokk lu bari daal ci li nga xamante ne moom mooy seen dund